on, Vairi. wala la fooy bañ jaar fu la fa jaarale xamal ma loolu borom soow mi ngay wax la am naa doole ah jeex amoo doole foo yow looy fooy bañ firi naa la fa jaar la boo jóob de xale yi sa xale yi am nga doole sa xale yi leer jeex bi ëkk bi la jëlal maay puus maay daan fooy bañ ma jaarale fooy bañ firi dinaa la fa jaarale fooy bañ firi dinaa la fa jaarale jeex munoo bëre amoo doole. jëlal lépp doole mais man maa maa daan jóg. acca mbokk internet yi di leen nuyuwaatam ah, bu baax a baax ndax ni naa dañuy dox actualité. Mm. bien vrai que nag parfois Ousin. Mm. Euh, dañuy dem mais parfois tamit euh, am na ay ruq-ruq yaa xam ba ca mm-hmm. euh, dañoo bëgg a dugal ki nga xamante ne moom mooy lañang mm-hmm. ndax gis nañ démb. li nga xamante ni euh, moom moo fi xew. Mm. ndax nee naa leen bëri dañoo am jabar. Mm. dañoo am doom dañoo am famille. Mm-hmm. Eumeu Sène nekk na koo xamante ni wax dëgg yàlla am na yenn détails yoo xamante ni nag munu ko munuñu ko cee waxal wala munuñu ko cee gis. Mm-hmm. ndax gis nañ ni ay affaire malfaiteur ay affaire bëri duñu genre yooyu quoi gis nañu Eumeu Sène ñu ngi ko taqal ci genre yooyu noonu. Mm-hmm. bien vrai que nag munuñu ko jot. di ko souhaité nag heureux ménage parce que dafa tax deuxième femme moo Eumeu Sène femme Eumeu Sène. mais nag fii waaw mais nag loolu tax nag lañ ak mi nga xamante ne moom mooy bras droit mhm. dugal mu ci ay quelques éclaircissement mhm. ñu xool nag mbokk internet yi puisque dañ koy laaj te Ouzin xam naa ne mënul. acca Adama ñi ngeek kon ni ma wax sànq rek ñi ngeek ki nga xamante ne moom mooy lañang nekk balaa droit Eumeu Sène nekk doomu ndey Eumeu Sène nee naa leen lépp loo xamante nii rek Eumeu Sène mooy lañang kon li ma wax sànq mbëri dañoo am jabar am doom am famille ndax am na yenn yoo xamante bu buñ leen ciy takkal il faut ñu def ay quelques éclaircissements dañ koy bàyyi nag mu nuyoo moom tonton la ñan mi ngi en direct ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo mbokk internet ak fan sa Eumeu Sène yi parce que xam naa ni coup de la mi ngi jot à chaque fois ay coup de fil ci Eumeu Sène tonton la ñan maa ngi lay nuyu. site internet yëpp di nuyu sa patron Fallou Ndiaye te di ko siyaar mhm. et puis di nuyu ahlu làmb yëpp mhm. muy mbër yi muy amateurs yi muy waa CNG muy service d'ordre bi mhm. muy ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngànk làmb rek ñu ngi leen di nuyu te di leen masawu vraiment di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu jàmm aussi di ko ñaanal suñu bopp aussi di déglu question yi après ma tontu si bu soobee yàlla mbeeg neex na yàlla mais tonton la ñang kon ni may wax rek xam nga mbër yi nee am soxna dañoo am famille dañoo am lépp ñu gis ni fan yi réew mi metti na. démb ñu gis benn kii boo xam te ñu ngi ko posté ci affaire Eumeu seen ci affaire pistolet. aha loolu noonu nan nga ko gisee ak tamit feey nan la demee ak ba ngeen gisee loolu. Mhm. voilà man de wax dëgg yàlla comme noonu nga ko waxee rek man dama jékki-jékki rek. Mhm. sama téléphone bi sonné partout. vraiment fii ba Europe ku ne di ma woo téléphone quoi ni ma dañu gis benn affaire man leen loolu lan la fekk man boobu xoolu ma ko day la parce que man nga xam daanaka bu ma seetaanee seen revue de presse ak yooyu ba pare rek hmm. daanaka yu si bari moom sama loxo mooy jàpp quoi su ma liggéey du ma may yenn yi hmm. par la suite bi ma gars yi waxee nag ci laa gis affaire bi affaire bi jëlee ma kaw quoi ñu ne Eumeu Sène dafa dafa recruter ay nervi yi dem ci jàkkaaroog askan wi di xeex ak yor ay pital affaire bi jëlee ma affaire bi jógee ma kaw affaire malfaiteur quoi waaw ma ni hmm. waaw lii moom lii doy na waar ah lii moom ki ko la ko teg Mhm. par la suite saa yëkkati sama téléphone ma woo ko ni ko mais champion ça va mun na ça va ko foo nekk nii mënoo maa ngi mhm. man ko looy def mënoo maa ngi nii sama bunt kër di pétanque. Mhm. ma ne ko pétanque mu ne waaw ma ne ko ah yow xanaa yëngu liggéey géej géej bi mu ma lan la ma expliqué ko mu ma non ku def loolu. man ko ah loolu de lépp bind am nañu am na site yu ko bind aussi site yu ko bind aussi. ah xam am na si loo xam ne fii àddina dafa am loo xam ne parce que am na détails yoo xam ne aussi dafa war a Eumeu Sène même bu dofeet ñu koy jigéen ñi ay dof. li mu mel askan wi def. Mhm. Eumeu Sène amul temps wu recruter ay nervi ak ni ko yàlla teralee ci àddina. Mhm. nga xam ni tey comme ni ma la koy mun a waxee tey téeméeri téeméeri moroomam ñu ci Sénégal. Mhm. yàlla seppi ko si def ko li mu ko def. Mhm. teral ko. Mhm. ba mu nekkee ndaw ba léegi macha allah yàlla su borom ñu koy teral. kon tey jàpp naa ne monsieur dara warul fukk bëtam ba muy jëli ay nerf yi naan day jàkkaaroog askan wi te askan wi def ko li mu doon. ñun ñi di ànd ak moom danoo bokk si askan wi. ay suñuy doom bokk si askan wi. moom ay jarbaatam bokk si askan wi leneen te askan moo ñu def li mu kon tey ñun duñu wëlbatiku di dal ci kaw askan wi loolu ñu koy wax ay manipulateur lañ ay yàqkat la ok te aussi ñun li ñu tal pour le moment mooy suñu làmb tey mënuñu am combat bu toll ni tafatin mhm. di ko préparé nekk si suñu ruqu vraiment ñu koy diñu postel loo xam ne ñu yëgu ñu tiilu ñu defuñu parce que bi mooy deux fois ñu koy def Eumeu Sène ah. loolu nag moom saisir nañ suñu suñu avocat mhm. ah ñi ko jot a xam nañ leen capturé nañ leen envoyé nañ ko fi ñu ko war a envoyé. Mhm. ah léegi nag moom yoon dina ci def liggéeyam parce que nag aussi ñun dañoo ñu mhm. taxal ci mbër parce que dem moo jaay am na ñeneen ñu fi tuddoon. Mhm. bii passé am na ñu bari di def lii ma def na yàq àddinaam. mais tonton Lagnan. bi ah. mooy deux fois ñu ciy taqal Eumeu Sène ah, di jël ay affaire yu di wax ay Eumeu Sène est que ñooñu ñi koy def xam nga leen tamit non xamuñu leen mais bu soobee yàlla fi ne dinañ leen xam parce que tey maanaam fa fa affaire yi jaar. Mhm. xam ko lañ ca war a saisir saisir nañ ko dinañ jël affaire bi jébbal ko yoon. Mhm. lañ ci war a enregistré lépp enregistré nañ ko yoon. Mhm. yoon def liggéeyam aussi. ok parce que nag mënuñu bu dara xewee rek nga tëb tëb li ñu mën xam nga nag fi fan yii monsieur Khadim Diagne da nga dem di recruter ay néeg. te loolu xam nga ni xel nangu ko ñun nii lañ ko déggee woon te mu ñu jékki-jékki posté benn vidéo nit ñi di commentaire internet bi fu la ñu dugal ko vidéo Eumeu Sène dafa jàpp dafa jële ay nerf bi loo xam ne sax bu ne bu fekkee ni dafa dof nopp yi koy dégg war nañoo wér. dëgg la dëgg la Eumeu Sène nekkul ci loolu. talul mm. loolu deful loolu. même Eumeu Sène bu dofoon ba toppooral ñi ko wër suñu ay dof. dëgg la te Eumeu Sène aussi du wëlbatiku di dal ci kaw askan bi nga ne ni mu mel askan bi ñoo ko def. Mm-hmm. sans askan bi kenn du xam kan mooy Eumeu Sène. la te est-ce que askan wi mënuñu la accompagner ba nga yegg si fi nga yegg si aussi dañoo dëkk di dal ci kaw askan wi loolu ay waxu naxa sa xam nga. dëgg la seen du ko def ay moroomam duñ ko def. Mhm. ni ma amee droit défendre Eumeu Sène nag noonu laa amee droit défendre tous les lutteurs. Mhm. parce que lutteurs yi tey ni ñu leen xamee ci àddina ak seen image fi ñu dem yëpp non non yi. Mhm. nan bàyyi guro bara bu ñu gis wala kenn ku ñu gis dañ ni diw waxal nañ ko fi ay mbër yu bëree bëree bëri te loolu rafetul aussi parce que information dafa wër a nit ki buy génne information information boobu dafa war a wér. Mhm. voilà loolu daal mooy li nga xam ne metti nañu léegi nag du lu ñuy jooytu fii wala faa wala fële am na fu ñu ko mën a jooytoo bu njëkk dantante bi rek ñu ñoo jëru ko détails yi nangam nangam te bii paa moom yaakaar naa ni moom dina yeggen dina yegg feneen quoi. ok bu ëllëg bu ko benn site internet. ñu jékki-jékki rek génneel ok mais euh, lan ngeen di waajee le douze ndax gis nañu tafaatin tamit instant bi dem na de mi ngi ci affaire yi MMA yi de. <laughs> waaw waaw waaw Tapha Tine noonu Tapha Tine moom macha allah fi <laughs> ah. moom macha allah sama mbokk la nag xam nga Tapha moom. Ah. waaw Tapha sama mbokk la sama xarit la. sa mbokk bawol bawol la. waaw sama mbokk bawol bawol la mais maa ngi koy ñaanal jàmm. Ah. boo xoolee sax mi ngi tooñ ëmb seen naan ko tontoo la ñag man lay faral. waaw waaw nee na yow lay faral yow moom ngay faral. man non baal ma <laughs> pare. ñu ànd ma jaar fa jaar après ku ne Diourbel yow nga jàdd man moom Eumeu Sène laay àndal waaw loolu lépp rek wax la dina suuf la sport bu boolewul wala tàqale parce que man tey ma wax la ko à part Eumeu Sène tey su ma amoon mbir mu may faral bu dul waa Pikine Tapha Tine lay doon macha allah ma wax la loolu tey tey bu ma amoon benn mbir bu may àndal bu dul waa Pikine muy Eumeu Sène ak rakkam yi nga xam ne ñun ñoo bokk Pikine su ma ci faralu su ma ci ànd ak mbër faral su ma seen mbër su ma kenn ku may faral ci làmb a jige a parce que diggante Refane ak Diourbel benn la. dëgg la te sama mbokk bool bool la te dama fier si bool bool ma doon. Mhm. waaw kon lamb ji doy waar la ñu ngi préparé le douze nag incha allah rabbi en tout cas daal lamb la joo xam ni. Mhm. ah lamb la de. lamb jànq de. parce que combat bi ñëpp ko nag franchement. non man yi lamb jànq la. Ah. kon Eumeu Sène mën nañoo xaar beneen retouram bu garaaw ci Tapha Tine. non dama ni dama ni si lépp. ok bu bees ngeen New Look. Eumeu ah. Sène ci forme Eumeu Sène ci ba. Eumeu mhm. Sène ci ba parce que am na benn xale bu ñu bëgg a essayé boo xam ne bii ci ponk lañ ko bëggoon a essayé yàlla may nañ tamit moom la ñuy entraîné pour essayé <laughs> ah, ay tontu wala yow am may may nga ma exclusivité de. <laughs> man yi Fatma la may boobu. Ah. yàlla dafa ko bëggoon a tànte. Mhm. di xalaat fan lañ koy tànte. ci mhm. ñaar rek lañ ko a tànte muy Eumeu Sène wala Balla Gaye. ah mooy seen prise bi ngeen bëggoon ci Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye il était malade. ah ñaanal yàlla fëgg boppam. ah léegi nag Tapha Tine moo des yàlla na ko yàlla may wér may ñu wér ba bis ba rek. ndeysaan ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko. ok te lamb jooju aussi lamb la ah. waaw parce que gis nañ nag affiche ci nekk dafa garaaw. non mais lamb jooju lamb fair play la. Mhm. ñoom Aziz li ñu tëkk ñoom Baye li ñu tëkk macha allah. Mhm. mais comme li may wax lamb jooju lamb fair la. Mhm. que la lamb ay ay ay ay ay Coly Faye de ay Thiatou Daouda Fall ñu ngi si tëgg ñëpp ay mbër gox lan. ay Alboury Kewal ay Alboury Kewal. ñooñu Jacob Balde. Mhm. déggoo ma Jacob suma rakk jooju suma jarbaat. nga xam ne papaam dëgg yàlla ñoo nekk doo Pikine def lu ne. Mhm. Papa Balde nekk suma xarit. Mhm. xam nga kër googu moom. gars yi Ama lan xam rek mais man wax dëgg yàlla kër googu suma kër. sa kër la papa laa ko gënoon a gaañ noonu. Mhm. waaw papa papa yi sakko boobu laa ko gënoon a gaañ noonu. mu gënoon nekk suma xarit. am pa koy ñaanal yàlla yërëm ko taxaare ko àjjanal fii. ok mais fi may jeexalee ak yow. génn foofu dama ko bëgg laaj lan nag lay nuyu baax a baax. Ouzin. maa lay fay jaww mhm. ji. mais dama dama gis Tapha Tine combat yu mujjee bëree ñaari mujjee bëree yëpp dafa damm ñii daa dam euh, ki nga xamante ni mooy booy Niang beneen bi dafa dam ki nga xamante nii mooy Bombardier te Tapha Tine ku xam combat am ku nekk xam ne Tapha Tine dafay xeex ba génn télé est-ce yéen a ngi xaar samp jaaga yi xeex parce que gën nañoo gis seen xeex nag seen diggante ma Gris Bordeaux ba léegi. Mm. est-ce que mën nañoo xaar Eumeu Sène mu suul tànk yi taxaw dóoranteeg Tapha Tine. mu suul tànk yi taxaw dóoranteeg Tapha Tine loolu mënut a ñàkk. Mm. par force la. xam nga dèjà fi mu ne Tapha mi ngi entraîné MMA. waaw. waaw nii loxo yi day xetal. <laughs> gisoo keroog bi ñuy def publicité bi daa ñëw rek commencé dóor si saako bi tëf tëf tëf di ñu napp. Ah. xam nga loolu daf ñuy neex xam nga tey benn Tapha Tine taxaw bëgg a xeex ak Eumeu Sène loolu daf ñuy neex. Mm-hmm. tey tey loolu ñu koy préparé incha allah dinañ taxaw suñu suñuy tànk xeex ak moom Eumeu Sène loolu boobu ah kii ñu koy waxee Tapha Tine du mm-hmm. la koy wax Tapha Tine. Mm-hmm. Eumeu Sène du boo déggee wax la loolu mooy li ñuy tànk li ñuy li ñuy liggéey nii pour réussir ko si Tapha Tine. ànd ak gàtt ciy combat. moom na na na na taxaw rek comme li may wax rek. Mm. moom sax day dëggal boppam ñëpp xam nañ ko ci moom macha allah jàmbaar la. li mm. nga koy guus mais daal moom na taxaw rek. amul eh. seen taxaw ñu jàkkaarloo. incha allahu rabbi ah. waaw na xeex a jolli daaw. mais ñooñu mu jël xam naa ni. Ah. yuuxu dina ji fuñ ko foogeewul. yuuxu dina ji. <laughs> fuñ ñu am nga confiance de. mais mais nañoo nañoo ci beneen question bi. tabaate ñaa ñu mujjee ba ñëpp di leen damm. waa da leen a damm waa dëgg dëgg la xam nga tax loolu. Mm-hmm.

waaw lool la rek laa lay loolu laay tontu sama waaj ba suuf comme présenté wul la moo tax. la Ousin Ousin. Ousin waaw maa ngi koy nuyu. maa ngi koy nuyu ndeysaan mais tontu la encouragé. ndeysaan mais tonton la fi may jeexalee mooy euh, comme Ama Baldé sa rak. sama rak sama yi gis nañ li nga xam ne moom mooy polémique bi. diggante moom ak Gris Bordeaux dégg nañ Modou lu mu wax nee na dafa bëgg a bëre combat mu jeex mais nan nga gisee Ama Baldé ak Gris Bordeaux gis nañ coow li le premier octobre ak la cinq novembre noo gisee loolu waaw li ma ko gisee daal mooy ñoom ay magam lan mhm. yàlla dogal ñu fekkante ci làmb booy bi def ay preuve am ba dab leen comprendre nga li wax bu baax mhm. tey bu dee ci Modou Lo laay wax Modou Lo yàlla dogal na ba ak Eumeu Sène mhm. boobu warul dama bëgg ngeen déglu moom bu baax li may wax parce que dafa am solo. dëgg la parce que moment boobu Eumeu Sène dafa daan ñi man Modou Lo daan ñi daan Modou Lo daan ñi Modou mënta daan mooy combat bu njëkk ba. Mm-hmm. teewul bi ñu ko doxee dañoo bëre moom. dëgg la combat bu mujj bii ñoo nekk roi des arènes la jógee. Mm-hmm. yàlla dogal na nag combat bu ba muy taxaw boobu bu gu dëgg Balla Gaye dëgg. Mm-hmm. yàlla dogal combat ba taxaw combat bi muy taxaw boobu ñu ngi France ñu taxawal ko jox ñu suñu avance jox ñu suñu lépp fay ñu lu jaral nag. ñu jël combat ba yàlla dogal mu bëri Balla Gaye Balla Gaye daan ko. Mhm. taxul ñu porté malade taxul ñu dugal médical taxul ñu def dara. Mhm. te booba si defet la jógee ñëpp naan bu leen bëri ñoom. ñu sàmm suñu ngor dem bëri moom. kon tey bu jëlee roi boobu ci ci ci ci ci magu Ama Baldé. Mhm. na ko jëlee woon si ay bëgg Eumeu Sène. Ama Baldé pour ba dajee ak moom pour bëri ak moom. na Modou Lo may Ama Baldé sans sam taxawu nag jàkkaarloo ak ak moom. beneen bi Ibrahima Diop suñu nawle la. nekk ndaw liggéey xaalisam ñëw dugal ko pour suqali làmb mhm. ñëpp xam na ni am na feneen fu mu ko noon a def mhm. dem tëgg Gris Bordeaux suñu xarit ak Ama Baldé suñu rakk yàlla dogal combat ba dem ay médical ak yëpp dugg ci yàlla dogal na guérison am na man maa seetaan directement Khalifa Diam bu ni Gris Bordeaux pare na bis ni ki tey dugg na regroupement moom moo ko wax maa mhm. ngi koy respecté bu baax suma papa comme moo wax loolu Ama Baldé depuis loolu na entraîné ça fait quatre ans nii ñëw na bëree jee Gris Bordeaux pare na pour bëree Gris Bordeaux le premier pare na pour bëree bëree teel la euh, le cinq ko jox le cinq bi trente cinq jours la na cinq jours yooyu ama ah, mën na ko bëree mhm. bu doon dix jours sax mën na ko bëree ñaari mbër yëpp lay préparé doo parce que ndaw la te professionnel la ko yor mhm. nan ko bàyyi mu bëri génn ci li nekk ci leneen parce que làmb xaarul kenn te moom dafa am yeneen projet yu nekk ci kanam yoo xam daf ko war a exploité ñun waa ko kon vraiment nañ ko nan nan nan réglage combat yi pare nañ pour bëri le premier pare nañ pour bëri le cinq. te bu leen fàtte ni nag ñoom mbëru Pikine yooyu muy Ama muy Eumeu Sène muy Boy Niang ñoom ñëpp ñooy bokk incha allah seen i entraînement. macha allah te ñu ngi si projet boobu te ñu ngi ciy waxtaan. macha allah te maintenant dina. non dina yomb bu baax a baax parce que am na ci loo xam ne nii mi ngi am te yéen du leen ko yëg parce que Ama Baldé buy gisee Coumba Sène Diaw grand du leen ko yëg. dëgg de ku mel ni Ladiang wala ku mel ni Jules Baldé wala euh, ku mel ni keneen ak keneen bu jënd ci télé bi wala rajo bi wax ko doo ko xam. dëgg la te pourtant mosu ñoo am làmb ñoom te ànduñu. même bu ñu mm. àndu si saa yi ñu ngi si baatin. dëgg la parce que boo amee làmb di ko grand ñaanal ne ko ci def noonu lañ fas yéene àndee si suñu combat yàlla suñu mhm. naan yàlla nag yàlla musal ñu si musal ñu si pikin benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar allah am na solo ñu jiitu ñooy jiitu ñu si topp topp ci Père Fallaye Balde li mu def pikin Père Baston li mu def pikin ak mbër yu mag yi fi jaar Balla Gaye ñeneen ak ñeneen ak ñeneen foofu la xale yi di jaar Tyson Baboy mhm. foofu la di jaar ñun Pape Cissé Grand Mansour Diop non foofu la ndaw ñi di jaar mhm. héritage boobu ñu ñu bàyyee dañ ba suñuy frère ba pare accompagner waaw loolu lañ si tey te ñu ngi naan yàlla suñu borom jàppaleen si loolu Pikine amuñu problème xiiroowu nu maayoowunu benn lañu hmm. te incha allahu rabbi di ngeen gis Eumeu Sène ak Ama Baldé booy ñaan ñoom booy soq ak ñëpp bokk benn liggéey di entraîné ci kàttanu yàlla ak mbaaxam am na solo ñaan nag yàlla may len ndam ñoom ñëpp muy bëru Pikine am combat ñëpp su may rakk lañu su may frère lañu aw mu fenn sens interdit macha allah si booy ñaan laa ko njëkkee teg ko ci Ama Baldé booy soq naaru sokaas booy yi am làmb Pikine Batista de ñoom ñëpp sumay frère lan sumay rakk lan ñii sumay doom lan mhm. cër lan ma jox bu mag a mag a mag cër boobu dama leen koy delloo mhm. respecté ku ne nag sa la nga nekk ak fa nga nekk am na solo yàlla na yàlla suñu borom jàppale yow Fatma maa ngi lay encouragé di la ñaanal merci bon di ñaanal Fallou mhm. di ñaanal aussi Ousseyn sama xarit boobu ah lu si dëng ñu xam ne man la lu si baax ñu xam ne suñu borom la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax. ndeysaan merci. Ah. Mhm. Mhm. jaajëf euh, mbokki internet yi yéen a ko déggandoo kon nee naa leen actualité rek nee naa leen moyen bu nekk dañ koy trouver rien que pour vous faire plaisir parce que tamit mënul woon ñàkk Ouzin mhm. ndax tamit buñ déggee dara du ñu tëb tëb rek wax ci parce que nit ki nag soo amul la leer da ngay woo ki nga xamante ni moom mooy la concerné soo ko mënul jot nga jot ki nga xamante ni peut-être bras droit am la laña dégg nañ ko li mu expliqué ci côté Eumeu Sène ak li mu wax ci combat Eumeu Sène ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Tapha Tine kon donc mbokk internet yi déglu ngeen information bi kon loolu leer na naññaa ñi naan Eumeu Sène dafa am recruté ay nervi affaire yooyu kon donc information bi fausse information la ndox gars yi nag ñun ŋaañ ñu kenn ndax kenn ku nekk nag yaa xam fan nga jëlee say information mais ñun tamit am nañ droit éclaircir ausin mm. lañang la woon mm-hmm. Fatma di di di di di leeral rek la ñang ak ki mooy Ibou mhm. communication Eumeu Sène yëpp ñoo ko yor mhm. lépp loo xam te dégg nañ ko ci Eumeu Sène wala lépp loo xam te war nañ koo jàllale mu information mhm. ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy diffuser waaye nag euh, li ma ci mën a wax daal mooy Eumeu Sène yàpp nañ ko ci yu mel noonu parce que njëkk nañ ko fee wax ci yu mel noonu ba dënn mu jóg mu woote mu jaral ko mu tontu bii paa tamit ñu waxaat lu mel noonu nañu xool bu baax a baax li ñuy sëf doomu aadama yi ñun

lañang lañ dalaloon ba tey parce que buñ demaatoon tamit nii la koy éclaircir di bëgg na képp koo xamante ne yaa ñu suivre à travers Kewel Info man ak Ouzin Adama mi nekk ci technique bi ak ki nga xamante ne moom mooy Mansour. di jox kaay boo ko déggee da di jox kaay yëpp <laughs> di daje ba suba incha allah sama àq dina la dal yow. suuf si. xool ma la ci lenn bëri laa la wax. man foo jaar nga tax suuf si yow foo jaar nga tax suuf si da nga koy sotteeku bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari fooy bañ a jaar fu ne jóob dë jeex jàmm la jaarale xamal ma loolu borom soow mi ngay wax xalaat naa doole ah jeex amoo doole foo yow looy fooy bañ fi naa la fa jaar la boo jóg sa xale yi sa xale yi am nga doole sa xale yi waaw leer jeex bi ëkk bi la jëlal lépp maay puus maay daan jeex moo tax ngay daanu maay puus maay daan yaay puus yaay daan maay puus maay daan jeex mu la jàpp si la fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi naa la fa jaarale fooy bañ fi naa la fa jaarale jeex munoo bëre amoo doole. jëlal lépp mun maa bëre aw ma doole mais man maa daan. daan